abonnez-vous à votre chaîne Omega Vision et n'oubliez surtout pas su ma doon yàq su fekkee da nga su fekkee da laa kooku wala mu faaloo la sax demal nga dindi ko. bu ah non man yow yaa may bëgg a jaaxal de. bouché. Mmh. y a des choses beaucoup plus importantes que di rester di débat débattre ci yoo xamante ni amalul réew mi njëriñ ay jaw dugg na fii di seetaan nag gis nga ku nekk yaa ngi def loo xamante est-ce que comprendre nga ku nekk yaa ngi def loo xamante ni. bu ko génn di ko wax fii tey réew mi toj. man amna man sama Instagram c'est mon Instagram est-ce que comprendre nga. waaw am naa droit dugg foo xamante ni. foo xamante ni fu ma neex la seet di ko seetaan parce que c'est mon Instagram influencé li bon kañ mooy may influencé nit ñi naan leen ñëw leen ngeen seetaan nii wala ñëw leen ngeen seetaan nii mais influencé wu ma kenn man damaa dugg seetaan donc di commenter di duggee comme ñëpp waaye waxuma kenn. abonnez-vous à votre chaîne Nahit's Média Vision et n'oubliez surtout pas activer